soone si na nga def. maa ngi fi. maa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla noo tudd. Jeynaba. Jeynaba Jeynaba foo dëkk. man maa nga dëkk baax na. Jeynaba euh, da ngay seetaan football. xamoo dara ci football. équipe nationale xamoo ci kenn. ankay ci xam. xam naa Sadio Mané. moom kese ngeen yéen Sadio rek ngeen xam. ak kan. ak Idrissa. ak Bamba Gueye. ak Abdou Diallo. kon yow ça su ma la déggee dëgg mooy yow xamoo ni sax Sénégal dem na Coupe d'Afrique. ankay loolu moom yëg naa ko. yaa ngi préparé Coupe d'Afrique bi yow. waaw d'Afrique bi kañ la mën naa supporter moom. kañ la n'est-ce pas février la ñu xam le 13 février. waaw la Sénégal di football. ak Gambie. waaw ñu ne Gambie dëkkandoo yi. waaw ñu ne Gambie match boobu du yomb de. suñu naw lay. suñu naw lay waaw waaw match boobu du yomb de ah. <laughs> incha ah ñaata ñaata ñaata nga gis ne la ñuy dóor Gambie. ñun. Hmm. deux rek baax na. deux zéro waaw baax na léegi dafa am question bu ma lay posé boo ko tontoo am nga 2000. Eh, boo ko tontoo 2000 francs yaa ngi nii. Hmm. baax na drapeau Sénégal laa bëggoon nga wax ma hmm. jaune ak rouge. si digg jaune bi mu am benn étoile bu vert. caa barki rasulillah eh kii gagné na ko xaaral ma jox ko 2000 am am si eh, say 2000 la ñu noonu. merci beaucoup ciao ciao. kilifa gi maa ngi lay siyaar. waaw maa ngi lay fay bàyyi. maa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm tur beeg sant bi. Alaaji Guèye. Alaaji Guèye. waaw Alaaji di nga seetaan football. waaw waaw waaw di nga euh, d'Afrique bi ren ban dëkk moo ko organisé. coupe d'Afrique bi maa ngi dégg ñu naan Côte d'Ivoire de. yaa ngi dégg ni Côte d'Ivoire moo ko organisé. dem na barki dem. na barki dem waaw Côte d'Ivoire sax effectivement moo organisé coupe d'Afrique bi. xam nga Sénégal ban jour lay football. non lundi laa ah, ba tey leeru parce que moom nga dégg nga ma wax. Ah, mais lundi la ñuy joué incha ak 14h suñu premier match la ñu am. non jàpp équipe bi la parce que. la sax. ah Gambie la Gambie. Ah. Sénégal bii passé mooy matchu préparation avant ñuy dem seetaan nga waaw seetaan naa ko waaw. ok euh, nan nga gisee match boobu. match boobu am na ay faay toujours. Uh-huh. tuuti quoi yoo xam ne war nañ. Uh-huh. war nañ ko réglé waat bu baax yow loolu nga gis. Ah, laa gis quoi. waaw ah, baax na incha allah bi desoon na. Uh-huh. tamit ak détermination parce que. est ce que mënoon na ëpp lool. mënoon na ëpp lool dëgg te te boo xoolee presque bi temps bi jeexee. lañ dugal dèjà man mi ko doon seetaan. bi blessure bi amee noonu ah, ah, man dama ah. jóg ne ak arbitre bi na tas match bi dama yéeg si kaw wàcc fekk match bi jeex sama yaay moo ne ma Sénégal naa dugal ma ne ko ah bon mu ne ma waaw man ne des na ay rëcc daal yoo xam ne daal mhm. taxawaay bi daal maanaam des na waaw par rapport bee passé mhm. bi bi ñëwee bu foolee match entraînement bi mu génnee mhm. ku ne gis na ne Sénégal am na lu mu mën a apporter mais bii nii moom ba dëgg daal Aliou am na xam-xam na xëy na dina ko def mais taxawaay ngay football nekk sa match préparation di am difficulté yooyu. tey boo demee ci compétition bi. compétition bi moom foofu kenn du la may dara. match la ren di jéggi la nga moo ci am. voilà te te te man dama gis que ni sax. Uh-huh. suñu match contre Gambie Gambie ñu ne moom ay dëkkandoo lañ. mais sax xam ne match bi match piège la. voilà match derby la bii bii genre confirmation lañ dem nii dañoo war a confirmer dañ ko war a confirmer war a gagné pour wan ne ñu ngi fi mhm. nekkoon ba tey mais soit bu match bi amee benn lënk-lënk rek mhm. dañuy ñeme na sant am na équipe ren mhm. bi ñu am nii nañu waxante dëgg am kon d'Afrique ndax bii du ko fi doublé waat kon beneen taxawaay lañu war a wone beneen xar kanam di ñaan yàlla may ñu ndam jëlaat coupe bi inshallah ñu fekkee fekkee seen télé bi tam yàlla defal jàmm ba ngeen ba lu bare bare leen ñaanal jàmm ndax lii rafet na lii neex na parce lu bon moon rek am ngeen mm-hmm. yëgee ba ñëw doomu aadama yi maanaam yéen réew leen bu la ñeen toog fi ñu toog naan nañ leen fa fekk mais fekk si ngeen doomu aadama maa ngi la ñaan yàlla defal leen jàmm yàlla sutural bu baax waaw parce ñun li ñu war rek la def comme mm. Afrique moo xewle mm. te coupe d'Afrique lañ am. donc ñun mooy mooy mooy mooy li ñu li nga xam ñun ñoo ko moom. Ah, tey nag kon bu ñu organiser coupe d'Afrique mu jege si. Uh-huh. ñun yoon la tamit ñu jël suñu caméra ak suñu micro. di dox ci uh, koñ yi. di jaa di waxtaan ak jaami na lañ gisee coupe d'Afrique bi lan la ñuy wax ci équipe bi. Uh-huh. équipe bi nga xam moo nekk champion d'Afrique tey. Uh-huh. tey ñu ngi nii engagé waat demaat coupe d'Afrique bi nga xam ne Côte d'Ivoire moo ko organisé te yaakaar naa ni amul benn équipe boo xam mi ngi bàyyi seen seen mi match ñëpp nag ñëpp dafa war a neex si Sénégal dama sentir naa ne pour man damay jàpp tamit ne information bi jàllagul dëgg bi waroon na neex instant yi ñu wane dañu am suñu war a jëm mais nag xëy premier match bu ñu si jàll rek gars yi nañ gën a ñëwaat daal wér na comme li président bi bi leen joxee drapeau bi nee na leen du leen wax ni ngeen dem jëli ko mais da ngeen dem jëli jiwaat ko parce que jël nañ ko ba pare donc dañoo war a dem jëli jiwaat ko te yaakaar naa gars ñoo war a booloo mhm. manko doon benn te Afrique dafa am benn affaire mhm. boo xam dafa ma métti trop boo xam tubaab yi ñoo ko wax lool képp ku ma interview dinaa la ko wax mooy parce que tubaab yi nee nañu coupe d'Afrique mhm. ñoom xam lan lañ ko tuddee petit tournoi xam nga tax ñu tuddee ko petit tournoi uh-huh. parce que Afrique lu toll ni Coupe d'Afrique di am. à part pays organisateur. yeneen dëkk yëpp seen mas stade du fees. te loolu teguñu ko fenn. waaw loolu moom du yoon quoi. man est-ce que jaay billet avant. comme léegi nga ah, nga jënd euh, Coupe d'Afrique bi mhm. man loolu laa gisoon ah mu ne noon soo jëndee billet. munoo dem ni nga mën a jox sa benn moroom mu dem billet ba place ba bañ libre. Mhm. man loolu laa gis bu fekk am na am dëkk bi organisé. Mhm. bu ko neexee bu dëkkam fubalee pare. ñeneen toog seen kër. ñun Sénégal lañ ne mun ñu xam ne ñu mun ñu dem quelque rek moo mën a dem uh-huh. léegi nag loolu foog gouvernement yi jàpp uh-huh. uh-huh. leen bii ñu toog supporter équipe pourtant pourtant nag gars yi dañuy dem gars yi dinañ dem supporters yeeg bi am na yeneen dëkk yoo xam ay sénégalais fa dañuy jël vol ñëw pour seetaan si coupe d'Afrique bi parce que mais problème bi mooy même a ñëw seetaan si tey tey par exemple tubaab yi ñoom bu ñuy jouer mhm. tey par exemple ma joxe la kaaw France bu doon football. Ah. ak beneen équipe. tey nekkul français bi ak ak équipe bi muy jouer rek ñoom la seen supporter ñëw. am na yeneen euh, kii yoo xam ne seen supporter faraluñu France faraluñu mais dañuy ñëw parce que football la ñuy seetaan. football la ñuy seetaan voilà loolu loolu loolu moom foog gars yi bàyyi ci xel ñun africains yi foog loolu ñu xoolaat ko bu baax a baax a baax a parce que. Euh, Coupe d'Afrique ah. bañ nañ ko ba dañ ni Coupe d'Afrique yëfi africain la donc gars yi nañ ci jàpp ah. di feesal estaat yi. di dem ñi nga xam ne ñoo dem tamit nañuy toog seen kër yi di seetaan match yi waaw ñi dem ñi dem Côte d'Ivoire ngir yàlla yéen match yëpp da ngeen war a dem stade seetaan yi match yëpp stade yi dafa war a fees tubaab yi waruñoo am lenn loo xam dañ ñu koy yebee vraiment parce que lii du yoon ba tubaab di tuddee suñu Coupe d'Afrique bi tuddee ñu ko petit tournoi waaw loolu neexul ci xol mais ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp kontaan na yàlla defal leen jàmm daal ñu ngi ñaan télé bi yokk ba xam ne ba ñëpp xaj si amin amin amin yàlla defal leen jàmm yéen tamit te lu met nag ngeen def ni parce que di ngeen dajeek façon nit bu nekk kii mën na comprendre lii kii mën na comprendre lii mais yéen ay naanaan ngeen xam ngeen muy demee si terrain bi daal di ngeen ko gérer jërë ngeen jëf jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu ñu jëlee ko bi yàlla nañ dajawaat fii nga ñëwaat même suuf incha allahu rabbi incha allah jaajëf bu soobee yàlla jërëjëf salaamaaleykum sëñ bi waaleykum salaam euh, tur beeg sant bi euh, Talla Fall Talla Fall Talla Fall dama bëggoon ñu waxtaanee coupe d'Afrique bi mhm. waaw Sénégal dafa mel ni demagul la. si Sénégal si la ah, dem nañ. waaw dem nañ non non mba dem nañ. no dem nañ. Ah, dem nañ kon jox nañ leen drapeau yi ah, bañ dem joxe nañ drapeau yi bañ dem bien sûr <laughs> est-ce que Sénégal ban jour lay joué. <laughs> Euh, euh, le quinze incha allah. le 15 ah euh, le 15 mooy lundi incha allah lundi incha allah. à 14h ah. Gambie la ñuy joué waaw mais est que xam nga match boobu match piège la non match bu metti la parce que ñun ay dëkkandoo la derby la daal mais ak suñu expérience mën nañ ci génn incha allah incha allah euh, match préparation bi ñu def fii avant ñuy dem coupe d'Afrique bi seetaan nga waaw seetaan naa ko nan nga gisee match boobu waaw match boobu noonu la mën a demee parce que Euh, Aline aussi stratégie bi mu war a euh, jouer mhm. il faut mu xaw ko nëbb gars yi waaw lu am solo la ko xaw a jaxase gars yi bu ko defee boo demee gars yi euh, duñ duñ xam fi nga jëm daal parce que yow kon su ma la déggee dégg da nga jàpp ne match préparation bi ñu def dañoo nëbb stratégie bi ñu war a footballé waaw ah, bien sûr man loolu loolu est-ce que yoon la non c'est normal hmm. c'est normal parce que est-ce que fi ñu yegg ak équipe boobu waroon nañ ko fay yegg non xam nga ñun suñu problème mooy dugal bi waaw foofu efficacité bi dafa des foofu quoi. Mhm. il faut ñuy dugal bii yu bëri ah. mhm. il faut ñuy dugal bii yu bëri quoi. il faut ñuy dugal bii yu bëri. waaw waaw dëgg la. Mhm. Euh, tey bu loolu weesoo yow nan nga gisee match bi contre euh, Gambie bi. waaw contre Gambie bi moom euh, match bu metti lay doon. parce que Gambie dañu mën a fubal. te dañuy teg bal bi. mais mën nañ ci génn. mën nañ ci génn waaw parce que ñu nit vedette yi am kenn ku nekk mën na rey équipe. mën na rey équipe mën na rey équipe. Ah. yàlla baax na jox ma score. Euh, deux. deux Sénégal waaw. deux la Sénégal dugal Gambie am benn. waaw est-ce que Gambie war naa dugal camp au Sénégal. non man ah, na fa dugal. mën na fa dugal koy parce que boo gisee suñu match bi ñu génn nii. Mhm. ñoom waroon nañ mën am bii quoi. dëgg la waaw. dëgg la euh, des nag il faut ñu ñu gën a taxaw daal ba nga xam ne si euh, ah, défense bi dina baax. Mhm. milieu bi baax attaque bi baax. parce que équipe bi ñu am moom wax dëgg yàlla sax encaissé bi. waaw incha allah yàlla baax na. yàlla baax na waaw champion d' waaw en tant que mm-hmm. daal incha allah dañ koy jëlaat incha allah. incha allah merci Kouba ñu ngi lay jaajëfal merci mbaa yaa ngi ci jàmm tur beeg sant bi. Ah, Ousmane Junior Ba je m' appelle Ousmane Junior Ba. Ousmane Junior Ba Ousmane Junior Ba yow dafa mel ni joueur bon ça va dund nañ ko ci jàmm. Mm. bon pour l' instant affaire yi ay ndax jël nañ coupe bi. Ah, jël nañ départemental jël ah macha allah ah, ah félicitations ah. lépp merci merci. allah tey aussi yàlla na leen jég. léegi tey dama bëggoon ñu waxtaanee li nga xam mooy actualité bi muy coupe d' bi Sénégal. waaw coupe d' afrique bi kan moo ko organisé. Euh, coupe d' bi je pense que Côte d'Ivoire la. Côte d'Ivoire moo ko organisé Sénégal lu muy xaar ba demagul Côte d'Ivoire actuellement. Sénégal bon Sénégal yaakaar naa yegg ñu ngi ci yoon bi. Ah, dem nañ waaw ah, bien sûr. ok dafa mel ni drapeau bi président bi jox na leen ko. macha allah tey nan nga gisee seetaan nga marchu préparation bi fii avant ñuy dem. oui oui suivre naa ko. nan nga gisee marche boobu. waaw gis naa ne c'était un bon match gars yi préparé nañ ko gis nañ ne coach bi aussi tamit mi ngi ay tactique am. Mhm. gis nañ ne mun mettre ñaari système en place. Mhm. gis nañ ne en premier temps teg na un système à trois derrière. essayé en deuxième temps gis nañ aussi tamit mu changé ko. peut-être il est en euh, son effectif di seet. peut-être ban système moo dox quoi par rapport match yu ñu dem quoi. mais mais tey ñàkk bii bi efficacité boobu noonu tamit dina am dina am lu muy lu mu lu mu ñu wàññil de parce que am na ñoo xam déjà seen xel dalul. ci lu toll ni champion d'Afrique ba pare ngay préparer match lu toll ni Niger équipe yooyu waruñoo mën a sonal Sénégal noonu ñuy am problème yooyu noonu wala. waaw waaw loolu pourtant loolu du ci dara nag. Ah, c'était juste une masse de préparation rek xam masse de préparation bokkul masse de compétition. dëgg la masse de préparation da nga ñëw indi benn système teg en place di essayer xool est-ce que ça marche ou pas est-ce que joueurs yi sont adéquats pas loolu moo tax. mais tey bu ñu demee ba de compétition. da xool système bi nga xam ne moo gën a baax mu gën a nekk en place joueurs yi nga xam ne ñu gën a apte. nga indi leen pour gagner match mais boo xoolee par rapport Sénégal ak Niger bokkul c' est pas la même chose. moom loolu dëgg la mais tey en plus tey Coupe d' Afrique suñu match suñu ñun ouverture ñun Sénégal bi muy njëkk a contre Gambie lañ ko mooy suñuy naw la lañ suñuy dëkkandoo lañ et tout donc match boobu bon dina di dina dina xaw a difficile ci benn match enjeu bi mooy la fekk Sénégal ak Gambie nekk frontière nekk ñaari dëkk yu lié bon loolu moo ci xaw a joué mais bu dee ci wàllu wàllu effectif wàllu joueur wàllu talent y' a pas photo quoi vraiment. mais bon tey ñun ñooy champion d' mooy comme li ma la li tax may la est ce que du match piège. la frontière moo ñu kii rek. moo ñu donc te ba pare ngay ñu xaar am boo nekkee champion boo ñëwaatee ñëpp dañ lay xaar. loolu moo moo tax du mm-hmm. mm-hmm. ñu doon mm-hmm. la champion d' Afrique dañuy ñëw wane beneen xar kanam wan na gars yi ñoo leen ko gën a bëgg dëgg la waaw ah, loolu kese la compétition moom boo jëlee coupe boo ñëwaatee moom yow ki nga xam mooy doog a ñëw c'est pas la même chose doo leen waaw parce que li may rappelé mooy tey li daloon euh, France 98 bëgguma woon bëgguma mu dal Sénégal franchement ñaanuma yàlla mu dal Sénégal booy pousse leen nii tamit ngeen di jaar ci kanam caméra bi nii bàyyi li ngeen def yaa ngi dégg parce que boo xoolee France 98 France premier match contre Sénégal Sénégal dóor merci beaucoup ah, Sénégal dóor ko moom dafa toog premier tour parce que premier match bi ko Sénégal dóor loolu moo ko rey moo yàq compétition bi donc Sénégal loolu daf ko war a a bàyyi xel te ñu ne Sénégal Gambie Sénégal

naa ne ñoom xam nañ leen xaar parce que sont des compétiteurs. jaajëf waaw c'est ça. merci Kouba ñu ngi lay jaajëfal kàddu rafet na merci beaucoup. soxna si na nga def. yaa ngi ci jàmm. ci jàmm baax noo tudd. man Mariama tudd. Mariama nga tudd. Mhm. Mariama élève. non waa élève laa mais centre formation laa nekk. centre formation nga nekk. waaw Mariama xam nga drapeau Sénégal. drapeau Sénégal. Mm. wax ma <laughs> Oh, drapeau Sénégal. waaw eh, couleur bi nga xool. drapeau Sénégal rek nu lan la lan mooy drapeau Sénégal. <laughs> drapeau Sénégal. waaw vert jaune rouge. vert jaune rouge mooy drapeau Sénégal. drapeau Mali. Um, xaw ma ko de. xamoo drapeau Mali. yow est-ce que nekku vert jaune bi nga wax mooy drapeau Mali. vert jaune rouge bi moom. Mm, mooy drapeau Sénégal bi ah. si digg bi Sénégal la wax. étoile bi si digg étoile ban couleur la vert la. vert yaa ngi may door wax ma eh, drapeau Sénégal drapeau bi ma njëkk wax drapeau Mali la Mali mooy vert jaune rouge tamit. ah waaw loolu ñi ko xam bariwul de. Hmm. Sénégal képp ku mooy introsé moom. Hmm. mënuma drapeau Sénégal vert zone rouge rek la may wax. waaw hmm. ah, vert jaune daam étoile nag ci digg bi boobu mooy Sénégal. mooy Sénégal bi parce que vert jaune rouge bi kese. bu Mali la. mais vert zone rouge am étoile ci digg bi ci fi zone bi ne nekk couleur vert ah. boobu mooy drapeau Sénégal. zone équipe nationale yi kan ak nga ci xam. Euh, ku ma ci xam laa xam. bul ci tudd saajo Mané nag. bul ci tudd Sadio Mané. déedéet. Euh, Bamba Dieng. ak kan. Euh, Gana Gueye. Mhm. ak Pape Matar. kuy Pape Matar. équipe nationale daa am ku tudd Pape Matar. de. wuy ma yaa ngi dee kay. équipe nationale kañ la amee zone bu tudd Pape kon damaa juum. ah da ngaa juum. kon damaa juum Pa Matar Sarr. waaw waaye yow naa ah wax nga ko. xam man Pa Matar rek laa dégg yeggoo ci Sarr bi. waaw ah, comme Pa Matar Sarr. waaw da ngay dugal Sarr bi ma xam ne moom la. ak kan waat. jeex na ñooñu laa xam. baax na à part loolu xamoo ni Séné xam nga Sénégal kañ lay football ban jour. Ah, jour ji mooy 4. jour ji mooy 4. maanaam jour ji mooy 4 mooy maanaam Coupe d'Afrique bi. jour bi mu war a commencé te loolu neewatul jour bi mooy quatre sax nag. Euh, est bi di Coupe d'Afrique bi di commencé mais Sénégal kañ lay joué. kañ lay Sénégal kañ lay joué. Mm-hmm. lundi la ñuy joué ak Gambie. lundi ak Gambie incha allah mm. neen daf ñuy gagné. Mm. waaw. ah rek. Mm. booba incha allah ñaata la ko Sénégal di dóor. 3 looy tàqamti ko daa am looy màcc wala. non si ngom <laughs> na de. waaw mais sama gars yi maa ngi leen di cher. yaa ngi mbaa yaa am jaamu. alhamdulilah tur beeg sant bi. Moussa Touré. Moussa Touré. ku baax yow tur beeg sant bi. Moussa Ñaan. Moussa Ñaan eh ñaari Moussa laa seet si tey de. waaw noonu la kii Touré kii Ñaan. baax na tey gars dama ñëwoon pour ñu waxtaan tey ah, ci football muy Coupe d'Afrique bi ñu dëgmal grand yow xam nga ban équipe ban dëkk moo organisé Coupe d'Afrique bi Coupe d'Afrique bi Côte d'Ivoire moo ko organisé Côte d'Ivoire yow Côte d'Ivoire nga wax. waaw gannaaw ban dëkk moo organisé. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire. waaw Sénégal dem na a demagul. Sénégal dem na kay. dem na <laughs> Sénégal kañ lay jouer premier match am premier match lundi la koy Sénégal kan lay dajal premier match. Sénégal ku mu dee kii kii lay dee Gambie. Gambie ah. suñuy dëkkandoo. ah suñuy match piège la de. ah non match derby la rek. ah, ah derby la rek. waaw la mais ah. match piège la Sénégal moom wax dëgg yàlla moom. Mhm. moom en général moom bu bokkee si poule yi difficile yi sax. Mhm. mooy gën a yomb si moom que mu bokk ay équipe yoo xamante ne mhm. du match derby quoi. te gëm naa ne Sénégal da ciy génn quoi. da ciy génn gëm naa ne da ciy génn. baax na tey ñun ak Gambie yow ñi am Gambie nga xam suñu dëkkandool Sénégal nekk champion d'Afrique. Ah. yow nan nga gisee match bi ak ni nga ne nii Sénégal da ciy génn nga faciliter ko nii yombal ko trop trop trop. ah non bokkul. Mhm. boo xoolee ñun boo xoolee cat ba mhm. ñëpp au niveau lañ nekk. yaa ngi dégg. Mhm. dëgg la parce que équipe bi nga xamante ne yéen a bokk yéen a bokk frontière. day xaw a métti. Euh, boo xoolee Gambie tamit dina xaw a benn côté ndax Gambie. benn ñoom seen zone yëpp xaaj bi yëpp fii la ñuy jiyee euh, ak climat dinañ adapté ak climat euh, Afrique mais bu ñu xoolee sur le papier. bokkul sax suñu benn zone rek mën na fay ñoom waa Gambie yëpp. loolu moom li nga wax moom dëgg la trop trop mais comme ñoom Gambien yi ah. seen xaaju zone yëpp Afrique la ñuy joué ah. léegi xam nga loolu tey ñoom am nañ ci am nañ de plus au fait donte ñun suñu zone au niveau lañ nekk ah. waaw mais loolu xam mooy looloo tax sax déjà match bi nekk match piège waaw loolu commencé nañ adopté parce que suñu zone yi boo xoolee ñaari coupe d'Afrique yëpp mhm. Sénégal nu mu def moo final moo final dëgg kon commencé na abété moo ko moo final moo ko jël kon commencé na abété aussi loolu mhm. kon loolu du doon problème quoi mhm. du loolu du doon problème ndax ñoo ngi ñoo fi def ay match amical mhm. ñoo ngi seeg yeneen équipe africain match amical mhm. donc loolu du doon problème mhm. xëy na ñoom dañuy gën a dina gën a intense parce que ñoom tàmm nañ climat bi mais loolu du doon problème si gars mais mais mais mais tamit benn a dafa am tey tey équipe bi Gambie am. comme seen xaaj joore ni ñu footballé Afrique. Ah. yeneen dëkki pays africain itam di def la même chose est xam ne saa Sénégal dajeeg ñooñu day am difficulté. waaw Sénégal pour l'instant nii. Mhm. Coupe d'Afrique bii nii. Hmm. mu laa ne Sénégal équipe bu mu euh, match bu mu jee final lay doon. dëgg la ndax moom mhm. mhm. lay demee quoi. mais mais mais match préparation bi avant ñuy dem seetaan nga ko. waaw préparation tamit. garaaw te tey jii équipe. pour man nga dee match amical di am ay difficulté di di am défaite moo gën foofu ngay gagné di gagné parce que tey mën nga di di dee match amical di gagné nga yaakaar ne am nga équipe mhm. fekk amoo équipe man man man man man man bokk man ma choisir mhm. ma choisir mooy équipe mhm. muy dee match amical di am ay défaite di am machine niin moom laa gën a bëgg que équipe boobu la sama xel di gën a dal que équipe boo xamante ne day gagné di gagné di gagné comprendre ndax la fekk ngay machine yi mhm. wala nga am defet mhm. di gën a defar euh, euh, a xam say faay mhm. di nga xam yow sa équipe type di nga mën a defar yow équipe bi nga xamante ne moom nga mën a yóbbu si Coupe d'Afrique bi dëgg tegal foofu sa baara ma wax ak sa trondoo bi ku baax waaw yow nan nga gisee match bi suñu premier match di ko am Gambie bi nga xam suñu dëkkandoo la non loolu moom ku la wax ni match bu yomb la waxul football ndax ku xam Gambie xam ko ci li mu wane xar bi mu wane si uh-huh. Coupe d'Afrique bi passé dafa dóor Gambie dafa dóor Guinée te ba mu jógee si Guinée uh-huh. mag si amical bi mu uh-huh. dajeek Sénégal maxi la boo xam ne maxi bu métti lay doon te surtout période bii ñu toll nga xam ni Sénégal mooy tenant du titre ndax coupe bi moom moo ko mujjee jël nga xam ne ñëpp moom lañ soxlawaat ci moom te ñun ñu doon loo xam dañ ko yàggoon a rêvé te it ñu bëgg fi ñu tegoon suñu tànk daaw. Mhm. ñu teg suñu tànk ren fu ko raw. ba jëlaat coupe d'Afrique bi incha allah. Mhm. mais Sénégal boo xoolee. Mhm. si benn day am benn problème bu ndaw bu dajeek Afrique noire comme ñi nga xam ne ñooy ñooy comme waa Cameroun. ay waa Ghana. côté yooyu noonu. day xaw am problème bu dee football naari naar bi nu muy ibbeekoo. par rapport ak ni muy fubaleeg ay Gambie ay Guinée. mais bi daal gëm nañ ni. buñ dañ ciy dugg bisimilah rahmaani rahiim yeggalee ko alhamdulilah rabbil alamin génnee 9 points. incha allah. incha allah te loolu lañ ci bëgg mhm. te ñun ak Gambie dañ wane xar kanam bu bokkul ak bi ñu wane si maxi amical bi ndax maxi amical mënoo see gisee équipe mënoo see mhm. ndax da xool say jeu jour mhm. ngay xool te Sénégal am na ay manquant yi nga xam ne am na ko yoo xam ne ñëwagul muy ko ci mel ni Pape Matar Sarr a xajamal suñu yoon dëgg allah du xajamal suñu yoon te li ci gën a sax mooy en général boo nekkee champion d'Afrique yore titre bi nga ñëwaat coupe d'Afrique ñëpp li ñuy xaar xamal la sa premier match. genre yow sa premier match boobu noonu ngay duggee ci compétition bi wala ci nga ci génnee parce que cas boobu moo daloon France bi mu nekkee champion du monde en 98 2002 mu ñëw dajeeg Sénégal France bii sax dugalu ko boo xoolee Sénégal moo ko dóor premier match am. France amul benn défaite premier tour la toog parce que défaite bi mu jël contre Sénégal rek loolu da ko travail en tant que champion du monde tey Sénégal nekk champion d' Afrique xam nga loolu noonu foog ñu bàyyi ci xel bu baax parce que match bi match la boo xam dañ war a gagné genre parce que ci match bi lañu yeneen équipe bi war a gën a bàyyi xel ragal ñu que bu fekkee ay Gambie dañoo ñëw mu nekk ay match boo xam day xaw a compliqué match bi warul mën a compliqué ci Sénégal même donte match derby lay tout mais pour man warul mën a compliqué mais maxi waru mën a compliqué mais maxi maxi kalkin la. ndax lu tax muy doon maxi kalkin. ne Gambie doonul équipe boo xam ni. coûte que coûte da ngaa war a ñël dal si kawam. pour ba ko gagné. parce que parce que ñun ak moom daje nañ ay maintes reprises te match yooyu yëpp day day jafe trop ci Sénégal sax. match yooyu yëpp day jafe ci Sénégal ndax Sénégal boo xoolee maxam yi mu yi mu yi mu ci gagné. da koy gagné si difficilement. ndax gagné gul maxi bu yomb. dëgg la. même boo xoolee Coupe d'Afrique bii ñu jógee sax noonu la match yi mu ci gagné yëpp mhm. match yu difficile la doon daaw match yi Guinée bi ñu jëloon mhm. jàpp ni moo doonoon match bi gën a yomb mhm. ci Sénégal ba mu ñëwee dafa def zéro zéro te it Gambie du doonul boo xam ni ku bees la koo xam ne war nga mën a ñëw rek jaar ci kawam mais adversaire la comme adversaire yëpp dañ koy respecté bu ñu ñëwee lépp li nga xam ni boo ñoom daal xam nañ liy gagné liy gagné Gambie. incha allah Sénégal xam nañ liy gagné Gambie incha allah te bu ñëwee den nekk. Mm-hmm. ñu ànd ak suñu coach Aline Cissé. Mm-hmm. moom xam na li li li war ci équipe bi. Mm-hmm. bu ko defee rek gëm nañ ni dañuy gagné Gambie suñu premier match dina métti lool. mais gëm nañ dañ koy gagné ndax. premier match boo ko gañee mhm. ci ngay duggee sa dëgg-dëgg compétition mhm. ndax premier match boo ci amee trois points yeneen match yi des yëpp mhm. réglage day doon rek yoo xam ne da ngay lijjanti noo jëlee première ci poule bi dëgg la waaw incha allah tey jox ma score lan nga jàpp ne la ñuy Gambie non Gambie moom la koy door 2 moom 2-0 moom man see mucc moom ah mënul ci 2 day jël kon baax mooy yow la gaa mi di jël. non deux deux lay jeexee. deux lay jeexee gars yéen est-ce que amu leen benn sëriñ boo xam dafa ñëw caaroy fii parce que caaroy ñi ma laaj ñëpp loolu lañ ma wax de deux de ñii naan ma deux zéro ñii naan ma deux un. non non non non loolu lañ loolu leneen ñoom duñ dugal suñuy camp. incha allah waaw duñ parce que ñun suñuy défenseur ñoo gën a technique wàllum vivacité. Mhm. parce que ñoom ay petit taille la ñuy doon ñun nag suñuy défenseur boo ñoom dañoo xaw a ponkal foofu laay xaw tiitee quoi mhm. waaw si vivacité yi daw yi nii déplacement yi mhm. mais su wàllum technique suñu défenseurs yi ñoo ëpp technique ñoo gën a kale suñu attaquant bu fekkee ñoom tamit suñu attaquant yi technique yi nañ foofu laa foofu foofu moom loolu moo tax ñun ñu kale ko si deux zéro macha allah kàddu yi rafet na di ñaanal Sénégal nag yàlla nañu yàlla defal ndam suñu premier match parce que premier match bi nii lañuy duggee ci compétition bi wala soit lañ ciy génne ñuy dute dute bi ñu amoon ci bii passé ñu naan di Sénégal dina qualifié du qualifié ba yàlla dogal ñu jël coupe bi bëgguñu loolu dal ñu ren parce que ren équipe yëpp ñu préparé mooy comme li may wax di ko waxaat rek Gambie lañ am suñu dëkkandoo la te loolu wax dëgg yàlla du doon match bu yomb mais Sénégal ca kaw ca kanam jaayeen jëf sama gars yi maa ngi leen di ah, bégee jaayeen jëf merci beaucoup gannaaw jox ma couleur euh, drapeau Sénégal mu mel ah, la vert zone rouge étoile vert. waaw ah. grand juumoo. non juum grand étoile bi rouge la. grand daanu nga non grand daanu nga. grand connecté léegi ñu ma ak yow. la. grand du vert zone la. xaw ma kii yaa ngi juum de. la. mais vert la mais fan moo ci digg bi la nekk. man digg ci zone bi. ci digg ban zone. zone bi zone bi mooy. grand Sénégal couleur bi vert la rouge zone bàyyi li ngay def waay. non non vert zone vertical wala horizontal. ah drapeau vertical wala horizontal. Euh, drapeau bi. Euh. c'est le triangulaire. <laughs> Moussa Ba couleur drapeau Sénégal nan la mel. drapeau Sénégal nan la mel. waaw vert zone rouge. vert zone rouge ak étoile ci digg zone bi. étoile bi ci digg. zone bi étoile ban couleur la am. vert vert. waaw non loolu nekkul ci digg zone bi grand juum nga de. tapé sa téléphone léegi ñu génneeku ñu xool. man amoo connexion. amoo connexion donc moo tax doo ko trouvé nañ dem. nañ dem nañ dem nañ dem. man école ngeen di jàngee. Ababacar si. Ababacar. si Ababacar si. liñ leen di jàngal ba diine gi lañ leen di jàngal. Mm-hmm. Ah? Ah. ah. lu tol ni école Ababacar si jàngalu leen diine luñ leen jàngal yëpp tubaab. oui. pour lan français grand. ah laaj ah? ma laaj la ban école ngay jàngee. abaaw kër lekk nii yow. orange orange lii la. orange bu Sénégal la wala bu Mali. bu Mali bu Mali. waaw baax na drapeau Sénégal lu mu mel. vert jaune drapeau Mali. drapeau Mali. waaw. drapeau Mali. rouge drapeau hmm, ah. Mali. drapeau Mali vert jaune rouge waaw jàkkaarloog caméra bi. drapeau Mali vert jaune kese. drapeau Sénégal tam vert jaune rouge. vert jaune rouge ak benn kii si digg bi. benn lan e, e, étoile. étoile. étoile amul étoile de. am na étoile kay juumoo ah, ci ci drapeau bi. si digg bi ci digg bi fan. si zone bi. ci zone bi ban couleur la euh, étoile bi am. vert bu wax waaye day perte de ñu demaat. dafal ma hymne bu Sénégal ma xool. pèsez tout la frappé. perte nga kenn du wax tout. sëñ bi maa ngi lay ziar. waaw yàlla boole ziar. tur sant bi Baye Niang lañ wax. Baye Niang Baye Niang xam nga football. waaw tuuti rek. waaw ah. koy suivre nag. di nga suivre football tuuti rek. Eh, xanaa yow mat Sénégal rek ngay seetaan. waaw ah, man lu ci man Sénégal kàccu kanam euh, tey yàlla dogal Sénégal mi ngi Coupe d'Afrique. en tant que champion d'Afrique aussi. Coupe d'Afrique bi ñu ngi ko organisé fële ca Côte d'Ivoire. Sénégal di jouer premier match am lundi incha allah à 14h. contre Gambie suñu dëkkandoo yi. match boobu match pièce la de. di day metti lool. ndax waaw waaw doomu ndey lañ tey dër bi lay doon dër bi lay nekk ah, waaw seetaanoon nga match préparation Sénégal avant ñuy dem mooy bi ñu fubalee stade Abdoulaye Wade ak contre Niger. waaw boobu nag jotuma ko seetaan mais mhm. gis naa ne daal métti woon na. waaw métti woon na de waaw tey en tant que Sénégal di champion d'Afrique di joŋante waat premier match am ak. ki nga xam ne mooy gàmb suñuy dëkkandoo loolu match pièce la de match boobu du yomb de du yomb de waaw ca kaw ca kanam après moom lu ñu man nañ ko def ba génn ci incha allah waaw mooy suñu mooy suñu mooy mooy mooy suñu waaw mooy match bi gën a xam ne moo lay moo lay moo la mën a dugal ci compétition moo ciy dugal moom ma ciy génn waaw waaw kon nañ ko fonk bu baax a baax te yow yow yow d'après loolu nan nga gisee équipe bu Sénégal waaw benn instant baax na baax na waaw maanaam sa xel dal na ci daal xaw na ci dal bu baax a baax ndax it li ñuy seetaan sueur yëpp ñu ngi ci ñoom am mhm. nañ bëgg bi mhm. te it am nañ ndaw ñi. dëgg la mën nañ li ñuy def. macha allah waaw nekkatuñ ku ñuy am complexe ci kenn. Mhm. ndax it joueur mm, la ñu xam fépp foo xamante bii fu ñuy xool joueur. ñu ngi ci ñoom. dëgg la waaw am complexe ci benn joueur. amuñu mhm. nañ ko ñoom mhm. lañ koy. merci toppaat seen ginnaaw. bu ma bu mu dem ci kanam. incha allah waaw boobu moom na ci ñëpp nga ci xam. Ah, non du ma du ma ma xam naa. ay Nampalys ak. Uh-huh. ay suñu boy bees bi Moussa Camara ak. Uh-huh. ay eh, nu ñu ko waxee. Uh-huh. Uh, Ismaïla Sarr Euh, Bamba Dieng uh-huh. Pape Gueye uh-huh. waaw ñooñu daal am macha allah yow daal daal jot nga xam jour yi daal am na am na tey ñoo ci ñi nga xam ne xam nga leen macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax di wax yow tamit sa place bi waaw yàlla na gën a naat rek waaw gars yi ñëw di jënd si rek bu soobee yàlla incha allah yàlla baax na taw feex taw ca kanam incha allahu rabbi waaw mbokk internet Lune TV gis ngeen tey lii lañ leen indiloon uh, ci seen uh, CAN 2024 donc ni lay demee sa su nekk rek dañuy dugg ci gox goxaat yi waxtaan ak ñëpp xam nga wax rek ñoom ci kaan bi jouru match sax jouru match bi sax incha allah dinañ def benn doxant rek am ñun ci waxtaan ñu xool gars yi lan la ñu xalaat ci match bi score beeg yooyu noonu yëpp ñu ngi leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah ciao.